waaw mais combat lay nekk ci biir géew bi tonnerre a xam nga champion bu toll nii tonnerre ñu koy bàyyi muy bàkku c'est pas normal war nañ ko xoolaat waa CNG lépp nag si war organisation la ñaari xale yi ñu ngi bëre lu am solo ba léegi ñu ngi jàppante candum nag daa ni dóor yi la gën a waaye na def attention si si bëre bi ñu ngi si diggu géew bi ñu ngi bëri lu am solo macha allah waaw mooy tuus noonu macha allah di bu mag daje fekk ay champion yu mag macha allah ba tey jii mu war a jox rakam ki nga xamante ne mooy Tony Junior mu wax ko waaw yéen a ngi seetaan noonu Tonnerre macha allah Tonnerre nag ndaanaan la ndaanaan la ci wàllu làmb ndaanaan la ci wàllu bëre xeexkat la bërekat la. non ndaanaan la waaw. waaw xale yaa ngi noonu bàyyante waat nañu arbitre bi soufflé waat na encore waaw fii nag coono day feeñ parce que nag doole mooy feeñ waaw doole day feeñ coono day feeñ ak contact bu wóor ak contact fii la liggéey di feeñee arbitre bi arrêté na ko fii la mbër fii la mbër di feeñ waaw arrêté nañu combat bi xam naa dañuy dem noppalu kon ñu continuer li nga xam ne mooy toujours tonnerre waaw tonnerre mooy toujours noonu lu am solo macha allah seetaan toujours tonnerre ak dellu si waat ci oh oh arbitre bi woowaat na ñaari xale. waaw ñu ñëwaat ci li nga xamante ne mooy. géew bi bañ ko ko dindi. lu la yàlla may tàndum junior ak caatu ak caatu junior sànq la ngeen doon seetaan tous waa solo muy toog toujours ki nga xam mooy tonnerre macha li la yàlla may arbitre suuf na si diggante tàndum junior ak ki nga xam ne mooy caatu ñaay bi. nii nag daa mel ne coono ngi bëgg a feeñ. waaw da ngay xeex. Eh, ci kaw nday doom liggéey yu nday doom. jeex nañu. waaw dañuy xeex combat bi mën naa yem foofu wala jàppante nañu jàppantewaat nañu. bëri bu métti la ñuy bëri. nday doom liggéeyu nday doom mooy caafi ñaay. mbasa mbasa waroon na jeex bu yàgg waroon na jeex bu yàgg mais nag dañuy naat ñaari ndaanaan yu daje. di ñaari bërëkat ñaari kàkkat macha allah. alaaji Paalama Jama. alaaji Paalama Jama. ñoom ñaar ñi ngay jàppante waat Thiandou mu ngi dóoraat ci suuf waaw Ousseyn Alaaji Paala Paala ma jama Jóob ñu ngi lay ne dafa mel ne dañoo tolloo doole nekk ay naataango da ngay xeex ci suuf Aliou baa ngi wax ak ñoom allo allo ma ne macha allah ndax fi jënd mën ta am xeex ñu ngi jàppante loo ñu ngi xeex non xeex bu nekk formation ñu xeex ñu xeex bu koy moobu jàpp na ngembali kenn ku ne jàpp na sa ngembal morom di yaakaar naa dara war na mën a feeñ diggante caatu ak ki nga xamante ne mooy caatu ñaay bi bëri bi yàgg na te metti ayca ñu tuusal vite fait. mooy tuus. Mbassa Mbassa. jaatu ñaay bi kan du vite fait ñëwal tuus vite fait. Mbassa Mbassa. ñu ngi xeex ñu ngi xeex ci suuf. sukk na jógaat encore. Mbassa Mbassa tuus jógaat. léegi nag incha allahu rabi. jeudi le 15 ak Ouzin production. bëre bu métti baleen bu ndaw. lu métti ak Papa Balde. xeex nañ bëri nañ. samedi 17 ñaari xale yi. ñaari xale yi Juufi production. mooy ñëw si diggante Bébé Jackson ak Caatu Kayre. arbitre bi arrêté na combat bi drapeau Serigne Mor. taaliba mag bi. voilà déedéet suble waat na combat bi dana ci drapeau Cheikh Tidiane Niang bi métti na trop président Ares dafa métti mais il faut kenn le lendemain nag le 18 ca la ñuy tëj ñaan yàlla yàlla boole wane la ñu si yow na jàmm oh. ouverture de la saison muy Mouniang Production diggante fils de Sadio ak Ama bu Malika loolu mooy le dimanche 18 ñu ñaan yàlla nag vacances deux mois rek ten oh. siwaat ak yéen jàkkaarloo yéen fii ñaan yàlla képp kuy dégg sama kàddu la yàlla boo ko manqué ci barke yéen a war na la ndomb ay ca vite fait dafa sonn moo indi lii vite fait di ñëw lii mooy lan oh. lan nga def nii ba toog waaye déedéet kay oh. du oh. dëgg toog na raas toog na ay ca càndum ndeysaan càndum def na jaloore waay càndum daan na càndum bëri nañu bi kii koy jël si. ay ca vite c' est doomu Serigne Ndiaye jaa ngi noonu. moom moo nekk école du Louga Gassara. waaye daa ko xale yi di leen tàggat. ma ngi noonu. waaw mais Thierno bi ñor dafa dafa dafa sonn coono da koo tax. waxati waxati bilaay boo gisee mel ni ndeysaan. may leen ko rek mu ñëw. ndeysaan Thierno ma ngi noonu moo daan. ay ca Thiandoum 2 moo daan Thiandoum ma ngi noonu. ndeysaan li ko waral mooy journée bi tey liñ ñu indil. dafa am solo. ndeysaan may ko mi ñëw top ak ki nga xamante ne moom mooy. champion yi noonu caatu kër Moussa. caandu ñoom ñooy bëri deuxième combat bi. caandu mais ak saamaan ñooy bëri troisième combat bu fekkee ñu tuuse ndam ak kara kara ñooy bëri deuxième combat bi. ak booy Pamba. deuxième combat ci biir yow. ci biir géew bi koy pambal champion la junior ak delta caatu kor Moussa ci biir malal ak fils de Aline Sey vite fait top 5 kor Moussa ci biir ak petit Baye Fall dab daan ñëwal taxaw waaye Gaston production taxawal dina ka am solo grand combat boy grand combat la euh, bu am solo la Gaston production taxawalati ah Jandeer production ñoom seen jàmbaar képp ko xamante ne kër Baye Fall jërëjëf ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk foofu tëjante ci jërëjëf jërëjëf bu jël problème ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax sa baay et puis ñoo ngi nuyu bu baax a baax nga xamante ni jaay ñu benn man bu naan jibi saw jibi saw jërëjëf Serigne Ndiaye jërëjëf nga xamante ni jaar na jibi saw yaay ma seen waaye nag kuy sa mag ñu ne Pape xarit la ko numéro 2 naan baa ngi nii taxaw na solo kon dañuy jaaree foofu dem ba Jandeer waaw xale la nuyu waaye am na jom de la commune de Jandeer monsieur Alioune Ndoye xol bi rafet na ki nga xamante ne mooy maire Jandeer di Papa Assane Ndoye liggéey yow ba pare maire Ndoye di Papa Maguette Mbaye ñu koy nuyu bu macha allah